commissaire bi ce qu'il a dit c'est très clair léegi loolu mënuñ ko accepter on va l'accepter on informe non non non responsable sur place ni ñu leen ko waxee sànq ñu ngi ci école Mass Massaër Niane ah. voilà ñu ngi woon ci même logique wu euh, takk der yi dañ ne ñu dañuy génn ci biti taskatu xibaar yi tamit nee nañu dañoo war a dugg alors ñu ngi woon ci même logique boobu noonu. finalement dañoo mujj wut ay deux ba trois délégués yoo xamante dañuy dem gis le président du centre waxtaan ak moom jéem a am li nga xamante ni moom la ñuy wax consensus euh, ñoom nag li nga xamante ni moom moom la ñu décidé mooy soit. Euh, euh, takk de kii comment dirais euh, taskatu xibaar yëpp dañuy dugg wala kenn du dugg voilà loolu daal moom mu xamante ni moom moo fi moo fi moo fi moo fi voilà basta la presse ne doit pas rester pas normal et c'est injuste dans ce pays laissez-les rentrer à l'intérieur et faire le travail point barre voilà pourquoi ñuy bàyyi presse bi presse bi dafa am droit ci biir def liggéeyam vous êtes des hommes de tenue vous faites de liberté. C'est la liberté. C'est ça l'information. Pure et dure. Laissez la presse entrer et faire son travail. lii mooy dëgg nañu bàyyi presse bi ñu dugg ay doomi jàmbur lañu dañu jóge ci ay ay maison ñëw di def seen liggéey pour leeralal askan wi pour askan wi xam li xew ci vote bi kon nag y a quelque chose de louche pourquoi vous ne voulez pas que la presse entre y a chose de louche c'est moi qui le dis la presse comme elle voilà j'ai décroché mais c'est pas normal. Euh, naxar lañ gis ci kanamu bépp taskatu xibaar bépp organe de presse tey jii parce que euh, euh, commissaire bi muy takk der yi dañoo ne ñëw du ñu mën a dugg ci biir mën a couvrir voilà kon voilà. voilà voilà mi ngi nii. voilà ordre na. même bu ñu amee gel ñu on garde notre calme. sortez sortez même si c'est des c'est des nous sommes des nous sommes pas des ennemis de la police c'est respectable ñoom ñu xam loolu mais ñun bu ñu andee ak gel bu baax il faut que ñu won leen ne ñun on n'est pas des. il faut qu'on soit sérieux quand même. alors alors ñoo ko gisandoo naqar ak tiis moom moo animé bépp taskatu xibaar tey jii ndax euh, leen dara waralu ko rek loolu takk der yi moom nee nañu du ñu dugg ci école bi pour mën a couvrir euh, élection yi parce que nee nañu dañoo war a toog ci ci ci biti xaar ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias ba mu ñëw de peur que ay euh, désordre di ci di fi am ak yooyu léegi ñu voilà il parle avec un commissaire qui parle ak gêne bu ko déglu parce que après xëccoo ngeen ngeen ngeen indi on a voulu lui parler avec calme s'il parle avec gêne dégagez comme s'il avait devant lui des des voilà voilà c'est vraiment désolant c'est vraiment désolant lii moom moom ma fa am fii ci ci école lu Mass Massayer ñaan fi nga xamante ni voilà métti na